rañane won mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye bis bi nga xamne ci la yàlla baxé won yoonu murit jaarale ko ci cheikhuna Ahmadul khadim wacce nañ ci cheikh Mahamadul Fadal bis bobu di magalu Kazu Rajab mo ñewat wara doon ñaari fan ci wéru avril motax njabotu Cheikh Mahamadul Fadal ci njitul serigne Abo Baraka yàlla nako fi yàlla yagal lolte doli ak wërem andando wat dem ci sen kilifa di Cheikh Mahamadul Muntaxa laajaat ko ci ndigal mu yeesalaat ko ci ñoom ñi woo yoonu murit wépp nag waaye ànd ak nag mbooleem njabootuk mu Mahamadul Fadal gi ñu fas yéene yëkkati ay kàddu woote bis bo ci turu sunu sëriñ ci turu sunu sëriñ boolu baraka sëriñ abo baraka mu Cheikh Abdoul Fadal moom Cheikh Mahamadul Fadal yal na fi yàgg te wér nee na lool te wér njabootu sëñ Fallou gépp ak mbooleem njabootu sëñ Fallou gépp xal Moussa gépp ak mbooleem njabootu sëñ Touba gépp ñu

ak taalibe yëpp bi Alaaji Baara ñëwee metti noonu def noonu ba rek bi Alaaji Baara ñëwee defe defe ko noona bokk taalibe bàyyiwul kenn ànd ko taalibe yëpp bàyyiwul kenn barka ñëw sëriñ Abou Baraka ñëw waaye moom itam li ñaari magam yi defoon lépp moom it li fi ñaari magam yi defoon lépp da ko yokk waaye wàññiwu ko da ko yokk waaye wàññiwu ko yàlla fi yàgg te wér yàlla fi yàgg te wér ci barke sëñ Touba ci barke sëñ Touba màggal ni ñu ko daan waxee rek nee na màggal gi niñ ko daan waxee ñoo ko yëgal njabootu sëñ Touba gépp ñoo ngi koy yëgal njabootu sëñ Touba gépp bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn kilifa diine yëpp di wo kilifa diine yeb bayiwun kenn bayiwun kenn fu mbok nek rek fu mbok mana ne te mbok seigne Fallu te mbok seigne Fallu te bok ci maamaaram te bok ci maamaaram ñoo ngi lay wo ñong lay wo bis bi nga xam bis seigne Fallu la bis bi nga xane bis seigne Fallu la bisum ñep bisum ñep bisum ñep bisum yakam di bis bu yakam yàkkamti am ñox bu sañon day am na ño xane ne bu weru weru day weru wer wer wu ne wer wu ne doon ko rajab ñu def mu doon kasu rajab ndax neexi wi ci am ndax neexi wi ci am ak jàmm ji ak jàmm ji ak xéewal gi ak xewal gi ak mbégte mi ak mbégte mi. kon loolu lu ñu yàkkamti lu yàkkamti la doon. kon loolu lu ñu yàkkamti la doon. kon ñoo ñaan mu ñëw jàmm. kon ñoo ngi ñaan mu ñëw ci jàmm. ñu fekk ko ci jàmm. ñu fekkee ko ci jàmm. teeru gan ñi. teeru gan ñi. ci taalu bi. ak taalu bi ci yar. ci yar ci teggin. ci teggin. ak berndeel. ak berndeel. ndax loolu rek. ndax loolu rek. mooy màggal gi. mooy màggal gi nañ jàngal xoraan di jang alquran lum gëna bari lum gëna bari mo ci gën mo ci gën qasida qasida lum gëna bari lum gëna bari mo ci gën mo ci gën salatu ala nabi salatu ala nabi lum gëna bari lum gëna bari mo ci gën mo ci gën kon nak ndong ngi ñep kon ñoo ngi sant ñep di wo ñep di wo ñep di ñaan ñëw jàmm di ñaan ñew ci jamm fekk fi jamm fekk fi jamm tok fi jamm tok fi ci jamm delu jamm delu ci jamm fekk fa jamm fekkat fa jamm nako ko yëgal président de la république ñoo ngi koy yëgal président de la république monsieur Macky Sall monsieur Macky Sall ak mboolem gouvernement bi ak mboolem gouvernement bi ñep ak kep ko xam jité nga mbolo ak kep ko xam ne nag nga mbolo ak fu mbolo ma mën ne ñu ngi xewal goo xam ne gi ndax xewal la goo xam ne ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci gannaaw bu loolu itam gannaaw bu loolu wéy itam noo ngi fàttali màggalu sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Fadilu noo ngi fàttali màggalu sëriñ Alaaji Mbàkke Alaaji Baara Mbàkke Fadilu nga xam ne bu ñu bu ne gannaaw suba nga xam ne bu ñu ne gannaaw suba la sëriñ Abdou Fattah mi nga ci ndigalul sëriñ Abu Baraka mi ngi sant bokk yépp ca seen taxawaay daaw ya di leen séentuwaat ren nu fas ko yéene ànd taxawuwaat yàlla nañu ci yàlla yóbbu ñu defe ko ni ko sëriñ bi bëggee te tase ceeg ngërëmam. adduna jëpp. adduna jëpp ak bindéef yëpp. ak bindeef yëpp. la ñuy woote. la ñuy woote. kii ñuy wootee itam. kii ñuy wootee itam. njëriñul àdduna jëpp la woon. njëriñul àdduna bépp la woon. amul xeej ak seen. amul xeej ak seen. amul murit ak tijaan. amul murit ak tijaan. amul yëfar ak julit. amul yëfar ak julit. loolu moo tax. loolu moo tax. may wootee. may wootee. addina jëpp. addina jëpp. ak nit ñëpp. ak nit ñëpp. ku bëgg a jariñu. ku bëgg a jariñu. addina ak alaxira. addina ak alaxira. wuysul ci woote bii. wuysul ci woote bii. ndax suñu borom. ndax suñu borom. li li li muy fay sëñ Fallu ci bis bi. li muy fay sëñ Fallu ci mooy lam ko doon liggéeyal ci mbindeef yi ci bis bi. mooy lam ko doon liggéeyal ci mbindeef yi. ci bis bi te mooy jëriñ addina jëpp. te mooy amu ci xëj woon ak seen. ku bëgg njëriñu addina ak alaxira. ku ñu ngi lay woo. ñu ngi lay woo. ci ndigalul Serigne Cheikh Serigne Abdoul Karim ak ci njiitul Serigne Baye Ndam Fall daayiratu Anfaat Cheikh Modou Fadal ñoy wo sen bokki bop yi di sen bisu bop bi di wo sen bokki talibé bop yi ci sen maami bop ji di Cheikh Modou Fadal bis bo xamanteni bi dañ ko baxo amal at mu jot magal Kazu Rajab desee ñaari fan ren nak mi ngi wara tolok le 31 mars incha allahu rabbi ñu tuddé ko suñu mami bop ku bax nituk alquran sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ñu ciy woo bokki seexul xadim yëpp la tàmbalee ci kër sox sëriñ Mamor Jaara ba ci kër ma sàmba di ci woo njabootu ko seexul xadim gi la tàmbalee kër Cheikh Modou Moustapha ba ci kër Cheikh Modou Mourtada la tàmbalee kër soxna Faati Ja ba ci kër soxna Maymuna waaye di woo bokki boppam yi ahlu mbuso bi yëpp waaye di woo seexi tu Tuubaa yi yëpp bàyyiwuñ kenn ak fu waay mën a ne nanga nga jàpp ne woote bi yaa ci jiitu kon bis bi ñun waa Ndakaaru kenn waru ñëw njëkk kenn waru cee mujj ñamaat ci leneen loo xam ne lii suñu jàmbaar ju baax ji Cheikh Moustapha Mbacké Falilou moo ñu fàgguloon mooy ne mbàggalu ko sareet bi woo naa ñëpp waaye wa waa Ndakaar moom dama leen di jox ndigal ci ni ngeen fay ñëwee ni ma bëgg ngeen ñëwee ko fa mooy bu bis bi jotatee na ngeen dajaloo yéen ñëpp daayira yëpp ak soppi ak xarit yi ak lu waaye mën am tam mën indi ni Touba ngeen daje Patte d'Oie ca kër ga bu bis ba jotee ngeen jóge Patte d'Oie fu ngeen romb ñu xam ne tey la bisu sëñ Fallu ba ñëw Ndakaaru fekkuma fa kon nag ñun ñu ngi ci soññewaat ñëpp na ko sëñ bi waxe woon ak ni ko sëñ bi sëñ aboo soññee ñu ngi ciy fàttali ñi nga xam ne dañuy si daan jàppale muy lu mel ni autorités yi euh, mu lu mel ni ministère de l' intérieur ak ministère de force di ci fàttaliwaat loo xam ne li sëñ bi dañu daan wax de saa bu bis bi jotatee nañ ko fàttali autorités yi mooy suñ bokk taal bi nga xam ne dañoo jó dañoo bokk ci bis bi tey jóge ci yeneen dëkk yoo xam ne yi territoire jaar seen diggante ak Sénégal ñu war a jàll ay ay frontière di ñëw fii di indaale seen ànd and mboro ak seen seen seen bagage ak seen gan kon nak serigne bi neena mi ngi yeesalat kep ko xamni ki autorité nga li tàmbalee ci douane eaux et forêt police ak gendarmerie mbokki taale bi nga xamni ne ñoo jóge ci dëkk yi ñu wër yëpp di jaar ci frontière yi serigne bi neena mi ngi leen di ñaan ñi jàppandal leen nañ leen daan jàppandal seen ak ñew ci bés bi loolu la ci doon fatali wat suñu bis bi nga xam mom lañu daan amal at mu jot muy bisu magalu Kazu Rajab muy bis bi nga xam ne damay wax toujours ne nun fallu suñu bisa kon nag ñoo ngi koy fàttaliwaat fàllu wi fàllu mu nekk taxaw ca nam ca daan taxawee ndax képp ku ñëw ci màggal gi kat dafay jàppale rek waaye ñun ñooy borom bis bi loole nag lañ ci jiitu nag mooy li ñu sasoo woon ci bis bi muy kaamil alxuraan yi kaamil alxuraan ñu ngi koy fàttaliwaat fàllu wi fu mu fàllu mën a nekk muy góor muy mu jigéen bu ma nee jàng alxuraan na ko jàngal boppam su ko mënul na neexal ñu ko jàngal ñu jàngal kaamil alxuraan mu def ko addiyee yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Modou Fadal borom bis bi loolu ñu ngi koy dellu di ko waat fallu yëpp ñu taxawaat boolem daaree kaamil yi nga xam ne nag nekk nañ ci Sénégal rawatina Touba sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttaliwaat ñu jàpp defaat nañu daan def at mu nekk jàng alxuraan lim bu ci am ñu yóbbu ko joxe ko ca eh, eh, fëli sëñ Fallou Bousso ca kër xabru Cheikh Mouhamadou Fadal nee na mi ngi koy fàttaliwaat ñëpp bàyyiwul jenn daaree alxuraan ginnaaw loolu it ñun fàll yi ñu dellusiwaat ci dab yi nga xam ne daanoon ko togg ñu ngi fàttaliwaat dab di ko soññewaat fu mu fàllu mën a nekk ca toggub añ na kon di fa mu ko daan dajale muy ko sëñ Abdoulahi borom dër bi waaye ñu ngi sàkkit kuy ñëw sa bool nga bind ci sa numéro téléphone ak sa tur ba nga xam ne bu mbir mi jeexeet ci sa bool réer ñu mën a laa téléphoné nga jël si waat sa bool loolu ñu ngi koy fàttaliwaat gannaaw loolu nag ñu ngi fàttali cotisation yi fàllu moo xam ne nii cotisé woon it nga delluwaat sa cotisation ngir addiyee jooju kat moom la ñu war a jox sëriñ bi ginnaaw loolu nag cérémonie officielle bi mi ngi nekk bu ñu màggalee ba ci suba sa ci 10 heures ren nag dañu sopp ñëpp ñu teel a ñëw ngir euh, dafa am beneen xew-xew boo xam ne dafa am ca bis boobu muy dafa am centre de santé bu benn kilifa tabaxal mu Mamadou Fadal ca Ndindi ci ñu war ko euh, euh, inauguré ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké war koo wubbi ji ca bis booba ca bu ñu jógee ci cérémonie officielle bi la ko wubbi ji kon bis baa ngi noonu talaata lay doon yemoo ak ñaari fan ci weeru avril bisub Cheikh Mahamadou Lamine Baara di altine yemoo ak benn fan ci weeru avril conférence bi kon bu ñu ne ginnaaw suba lay doon bis baa ngi ngi ñaan ku ci teew sun borom faj sa aajo ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bihi narju min allahi rahmatan wa bihi dunya wa uxra min alkarbi